mbokk internetu M4 TV ñu nuyuwaat leen bu baax a baax daal di ñëw ci xibaar bi nga xam ne moo fi ruus mu jëm ci Ahmed Suzanne kamara moom mi nga xam ne nag ci jamono yi mu ngi ci loxo yoon gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu foofule euh, ca Seneweb ci émission buñ ko invité woon émission ultimatum moom nag kàddu ya mu yëkkati bokk bokk na ci rek euh, daanaka yu tegginewul di ko teg ci njiitu réew mu Sénégal di Bassirou Diomaye jaxaar fay ak ki nga xam ne rek moo di premier ministre am Sonko ay kàddu yoo xam ne rek ba mu ci jógee tax na nag police daal di koy jël si moom Ahmed Suzanne Camara waaye itam ñu fàttali ne rek ci boobule émission moom Ahmed Suzanne kamara doon amal foofu la ci Seneweb daanaka sax daal di na fay ŋàññi kile di njiitu réew mi Macky Sall ak itam la tax ñëwul ci biir réew Sénégal lam ca xamle bokk na ci ni saa su ñëwee file ci Sénégal tamit dinañ ko teg loxo waaye moom Ousmane Sonko di premier ministre itam euh, bu génnee réew mi dinañ ko teg loxo moom la Ahmed Suzanne Camara wax waaye itam yeneen yu gën a doy waar yoo xam ne rek da ko teg ci njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye jaxaar fay ñu fàttali rek ni moom Ahmed Suzanne kamara moom si jamono yi nga xam ne rek njiitu réew mi Macky Sall moo fi nekkoon yëkkati woon na ay kaddu di wax ni Ousmane Sonko dañ ko war a faat mu doon kaddu yoo xam ne rek ñu bëri ci askan wi dañ ko doon ñaawlu waaye it yi niki tey mu daal di yëkkatiwaat yeneen i kaddu waaye mu mel ni rek coppite daa am bu baax a baax ndax kat ci jamono yi mu ngi ci loxo yoon ñuy xaarandi fan la moomu le mbir di mujjee leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen abonné tey wéy di partager ngir lépp loo xam ne rek moo fi ruus ngeen mën ko am ci anam bi mu war